أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tey ñoo ngi ci darsu saamin asara muy dars fukk ak juróom-ñett ci tafsiru tawxid wa shahaadatu an la ilaha illa allah dars bu tey bi mu ngi topp ci bi passé tey sunu dars bi min ahdaafi dars bokk na ci jubluwaayu leçon tey bi mooy an yaqtadiya al muslim bi imaami al xunafa alayhi salaam jullit bi tey dina jàng ci leçon tey bi pour mën a roy ci imaamu imaamul muwahidin muy ibrahima alayhi salaam tey sunu dars tey bokk na ci li tax ñu koy jàng mooy ab jullit pour mu mën a roy ci ibrahim alayhi salaam ñaareel mooy bokk na ci dars bi li tax tey ñu koy jël mooy mu mën a leeral jullit bi xam ann tawxid laa yufsalu illa bil ixlaas tawxid kennal yàlla kenn mënu koo am lu dul kuy sellal kuy sellal rek moo mun a am tawxid ku dul sellal doo am tawxid ba yowmal qiyaamati waaye doo yem ci sellal rek ngir yàlla waaye wal baraatu min ashirki pour nga set wicc ci bokkaale yàlla tabaraka wa taala ñetteel li tax ñuy jàng darsu tey mooy an yastadilla al muslim ala maana la ilaha illa allah bi qawlihi ibrahim alayhi salaam jullit bi na mën a am ay tegtal yu wir yoo xam ne daf koy leeralal lan mooy la ilaha illa allah ñetti tomb yi moom moo tax tey ñuy jël dars bi buñ ñëwee ci aaya bi benn aaya ñetti aaya la ci suratu zuxruf aaya 26 27 28 borom bi subhanahu wa taala di wax ci làmmiñu ibrahima alayhi salaam mu ne wa iz qaala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani buraa'u mimma ta'buduun إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية على أعقبه لعلهم يرجعون borom bi subhanahu wa taala mu ne wa is fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala ba mu waxee Ibrahim Ibrahim Ibrahima kan la doon waxal mu ne li abiihi baayam yow Muhammad na nga fàttali jullit yi na nga fàttali waa Quraysh keroog ba Ibrahima taxawee ca péncam di wax ak baayam ana lan la Ibrahima waxoon ak ñoom ndax baayam rek la waxal yàlla mu ne déedéet wa qawmihi ak ay nitam Ibrahima wax na ak papaam waaye Ibrahima wax na ak kan ak ay nitam wa qawmihi ak ay nitam indi fi aali lan la ko ibrahima wax mu ne inna nii buraa'um mimma taamudun man ibrahima day ku dañ laa ci lan ci li ngeen di jaamu ibrahima fekk na seen dëkk fekk waa këram fekk ay mbokkam lan lañ doon jaamu ah xërëm papaam sax papaam sax moom moo doon yett xërëm yi di leen jaay ibrahima ne naan ibrahima dama nga jaayi moo tax ibrahima lan la njëkk a def déclaration mooy man deñ naa ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii buraa um mimma taabudun man ku deñ laa ci li ngeen di jaamu pour nga jaamu yàlla foog nga deñ ci li nga fekk nit ñi di ko def nit ñi di ko jaamu foog nga deñ ci Ibrahima ne man de deñ naa ci ci li nga xam ne dama fekk nit ñi di ko jaamu illa allazi ba mu des ki nga xam ne fatara nii moo ma bind fa innahu kooku sa yahdi dina ma jubal buraa mooy taarikun wa mubtaidun man de bàyyi naa waaye waxuma la bàyyi rek mais dama sori Ibrahima fekk na jaamu xërëm yi fekk na jaamu biddéew fekk na jaamu garab fekk na jaamu ndox fekk na jaamu fekk na jaamu nit fekk na sax ñuy jaamu namruud waaye mu denc loolu yépp ba mu set mu ne ku ko bàyyi laa te ku ko sori laa maa ngi jëm ci ki nga xam ne moo ma bind ay xalaqanii ibrahima yemul ci loolu deñu ci rek moom kenn mu wéetal yàlla waaye wa jaalaha kalimatan baqiyatan ala aqibihi ibrahima def na baat boobu baat boo xamante ne daf ko donnuloo daf ko dénk ay njabootam loolu moo tax yow boo bàyyee bokkaale fexeel say doom bàyyi bokkaale yow booy jaamu yàlla fexeel say doom jaamu yàlla booy topp yàlla fexeel sa waa kër topp yàlla waaye yow rek ngay dem jàkk bàyyi sa waa kër tëdd di nelaw loolu amul benn importance Ibrahima ba mu deñee ci xërëm yi bàyyi bokkaale def ko def ci njabootam wa jaalaha kalimatan baqiyatan ala aqibihi lu tax mu ne laallahum yarjiun ndax ñoom ñu mën a dellu si xalaataat ne yàlla dong la ñu war a kennal ñu jaamu yàlla moo tax ibrahima def ko baat bi muy ndénkaane mu dénk njabootam su ñëwee ci anasiru dars mooy wujubu ilaani lbaraa min al mushrikin jullit bu mu mën a doon ak foo mën a nekk li war ci yow mooy nga def déclaration leeral sa position ne yow ku denc bokkaale nga nga bokkaale kat leeralal fi nga bokk léeg-léeg nga gis ab jullit bu faat fekk leeralul woon ginnaaw nit ñi ñëw defal ko ay shirk defal ko ay bidaa lu ko waral mooy bi ngay dund nit ñi xamuñu woon foo nekk foo bokk kon sooy dund fexeel parce que dee dafa gaaw fexeel nga leeral sa taxawaay fexeel nga leeral sa jubluwaay fi nga bokk ba ëllëg ak si biir kenn du mën a bokkaale sa ginnaaw ixwatal iman laqad tabarra ibrahim alayhi salaam imam alxunafa min kulli ma yaabuduhu abuhu wa qawmuhu ibrahima alayhi salaam leeral na position ne moom ku deñ ci ay mbokkam luñ doon jaamu ku deñ ci baayam lim doon jaamu ku deñ ci waa dëkk ba lañ doon jaamu la ibrahima daf koo leeral ba mu leer Ibrahima dafa leeral loolu lépp ne moom daf cee dañ waaye mu sette mu def benn istisna mu ne illa allazi xalaqahu ba mu des ki nga xam ne moo ko bind mu ne moom kooku rek lay jaamu wa hada huwa tawxid lii nag mbokk yi moom mooy tawxid mooy bàyyi jaamu lépp ba mu des yàlla yàlla rek ngay jaamu ndax yi jaamu kan moo ko moom yàlla jaamu kenn moomu ko ku dul yàlla yàlla rek moom moom jaamu wa huwa maana la ilaha illa allah loolu mooy maana la ilaha illa allah la ilaha ñaari baat la la ilaha illa allah boroom xam-xam bi ñuy firi ñaari baat yooyu muy la ilaha illa allah ñu ne ci ibrahima aaya bii mu doon wax ay nitam naan leen man ku deñ laa ci li ngeen di jaamu lu dul yàlla rek borom xam-xam yi dañ ci tegtaloo ñu ne ibrahima baatu laa ilaha illallah la firi fii ci ci aaya yi ñu ne baat bi mu ne laa ilaha dafa tolloog inna nii buraau mimma taabudun bi mu ne laa ilaha rek duma jaamu lenn loolu mooy man dama denc ci lépp li ngeen di jaamu beneen baat bi nga xam ne mooy illallah dafa tolloog illa alladi fatarani ba mu ne laa ilaha lan la wax bi mu ne laa ilaha yi lu mu ci teg illa allah bi mu ne innani buraau mimma taabuduna lan la ci teg illa allazi fatarani kon ñaari aaya li ñuy tekki mooy laa ilaha illa allah man de bàyyi naa jaamu lépp lu dul yàlla ñu ne ko foo jëm nag mu ne maa ngi jëm ci yàlla mi nga xam ne moom moo ma bind illa allazi fatarani mu ne fa alal muslim comme dina war ab jullit an yastahdira zalika inda nutqi bi kalimati tawhid dina war ab jullit kon saa yuy tuddati baatu laa ilaha illa allah muy teewal ci xelam ak xolam baat yi lan lay tekki wa yuhaqiquha amalan wa ilman jullit doo yem rek comme tey ni ko jullit di defee naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah déedéet da nga war a dëggal baat bi ci say jëf ak ci say wax ci say jëf ak ci say wax nga dëggal baat bi ci say jëf ak ci say wax ku la gis xam na yow mii laa ilaha illallah dafa dëggu ci yow mais xam nga tey li am ci sunu société mooy nit ñi di wax laa ilaha illallah te feeñul fenn bal sax wax ji moo njëkk a njëkkut a baax laa ilaha illallah liñ yàlla natoo ñun waa réew mi mooy baat yi ëpp importance ci lislaam mënuñu ko wax baatu laa ilaha illallah ci la bokk baatu astaghfirullah ci la bokk yeneen baat yi des yan la ah déedéet subhanallah beneen baat bi lan la assalaamu aleykum ñeenti baat yi Sénégal ñu bari mënuñu ko wax da ngay gis ko yor kurus gu gudd war a wax laa ilaha illallah di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah wala mu war a wax astaghfirullah mu naan astaghfirullahi astaghfirullahi astaghfirullahi wala mu war a wax subhanallah mu naan subhanallahi wala mu war a wax assalaamu aleykum mu naan salaamaaleykum boo waree wax astaghfirullah nag nga nekk fa naan safrullaay est-ce que yàlla dina la jëggal yàlla du la jëggal boo waroon wax laa ilaha illa allah nga nekk fa naan laay laay la laa soo ba ngoon yàlla du la faale kon baat yi dañ ko war a dëggal ilman wa amalan xam-xam ak jëf ñaaree ñooy ànd xam-xam bu àndul ak jëf baaxul loolu moo tax yàlla xas yahuud yi jëf bu àndul ak xam-xam aussi aussi bala parce que réer la moo tax ñaari ñooy ànd al iman wala amal gëm ak jëf xam-xam ak jëf ñooy ànd ba tey bokk na ci anasiru dars mooy at tawxidu laa yuxsalu illa bil ixlaas al ibada lillahi wahdahu kenn du mën a am tawxid duñu mën a kennal yàlla lu dul dañoo sellal sunu jaamu yàlla rek tax ñuy jaamu foo gis kuy sellal di def ngir yàlla day am tawxiid waaye foo gis kuy wanew li ëpp day bokkaale mbokk yi al ibadatu xaqun lillah jaamu droit la boo xam ne yàlla rek moo ko moom jaamu jaamu mooy la dama luy ustaas mbañik lan mooy jaamu yàlla dars yi passé waxoon nañ lan mooy ibaada mooy tur la boo xam ne dafa ëmb boole lépp lu yàlla bëgg ci wax ak jëf mu gërëm ko moom yàlla tabaraka wa taala lépp lu yàlla bëgg ci wax ak jëf moom yàlla mu gërëm ko d'accord ci loolu mooy jaamu yàlla mooy al ibada ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu llah wa yardaahu min al aqwali wal afaali aw al amali alzahira wal batina moo xam loolu dafa feeñ wala dafa nëbbu loolu mooy ibada loolu nag kan ma ko moom yàlla subhanahu wa taala moo tax mu ne xaqun lillah fala budda idan min ixlaasiha lillahi wahdahu comme yàlla rek moo ko moom kon li war ab julit mooy mu jox ko yàlla kese mu sellalal ko yàlla tabaraka wa taala wahdahu nee na wa haza huwa tawxid lii mooy kennal yàlla na nga fexe say jaamu loolu ngay tuddee jaamu yàlla na nga fexe nga def ko nga defal ko yàlla rek bu ci kenn feeñ sa bakkan sax yow buñ ci feeñ say bëgg-bëgg buñ ci feeñ bul ko ngis talu waxuma la ak nag nga koy defal keneen ku dul yàlla tabaraka wa taala amma man yacbudu allaha wa yacbudu maahu gayruhu fa huwa fa haza huwa al mushrik nee na képp kuy jaamu yàlla nga ci boole keneen ku dul yàlla nee na yow moomu di def loolu yow yaay bokkaalekat misaal kan moo may jox misaal bokkaale ku may jox misaal lan mooy bokkaale ah xamuleen bokkaale ku xamul bokkaale kon doo mucc ci bokkaale waat ci nit bokkaale la wax na dëgg ndax yonent bi nee na man xalafa bi gayrillahi faqad ashrak képp ku gitt ku dul yàlla bokkaale nga keneen ku may jox beneen misaal jaamu xërëm bonne façon kee wax na ko ba pare waxal leneen jaamu estati ak lan jaamu nit ak lan jaamu ndox ak lan takk gàllaaj takk ay béjjën takk ay lam ay xaaw ay petaaw yooyu yëpp bokkaale moo tax jullit ñu war a moytu loolu yooyu yëpp ay bokkaale la jullit ñu war ko moytandiku ñu jaamu yàlla kese kese kese ñu bañ cee dugal leneen mu ne képp kuy jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla gi nga dugal ci leneen lu dul yàlla fa huwa mushrikun kooku bokkaalekat la wa huwa alwaaqi min qawmi ibrahim nee na kooku moom moo tolloog la nit ibrahima yi doon def faqad abadu llaha wa abadu maahu alihatahum dañuy jaamu yàlla defaale leneen mooy comme ñun sénégal tey niñ koy defee jaamu yàlla defaale leneen ci biir jaamu yàlla nga gis kuy jaamu yàlla fekk mu ngi am ay xàmb day dem sangu ci xàmb yi jàpp ci ba pare génn ñëw dugg ci jàkka ji ah nga loolu mënul nekk jaamu yàlla kese rek leneen amu ci leneen amu ci place yàlla rek nee na nitu ibrahim yi dañu jaamoon yàlla waaye ci biir jaamu yàlla yi ñu dugal ci keneen kama dallatil aaya comme ni ko aaya bi waxee yàlla ne ibrahima ba mu leen fekkee ñuy jaamu ay biddéew ñenn ñi di jaamu ay xërëm ñenn ñi di jaamu nit bi mu juddoo xam ngeen ibrahima bi mu juddoo kan la njëkk a waar yaayam dafa judd rek wax ak yaay ji mu ne yaay kuy sa borom man ku kuy sama borom mu ne ko man yow kuy sa borom mu ne ah mu ne maay sa borom mu ne yow yaay kuy sa borom mu ne sa baay mu ne sama baay kuy boromam mu ne bu ñëwee nga laaj ko mu dem na papa ji ah man ragal naa xale boobu ñu doon wax maa ko jur de papa ji ne ko nañ dem ñëw mu ne ko papa ku ma moom mu ne ko sa yaay sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow ku la moom mu ne ko namruud buuru dëkk bi mu ne ko namruud buuru dëkk bi ku ko moom mu daal koy pes ko yow naroo indi jàmm ñooñu la njëkk a waar bu fekk ay papaam di yett ay xërëm di ko jox xërëm yi demal nga jaayi ko su jaaree ci mbedd yi lan lay wax kan mooy jënd lu koy lor kan mooy jënd lu ko dul jëriñ kan mooy jënd lu ko dul jëriñ ñu ne waaw yéen di ngeen xale bi li muy wax ñu ne lu muy wax ñu ne déglu leen yow looy jaay mu ne xërëm nga ni lan mu ne ku ko jënd du la jëriñ ñu ne ah loo xam da nga koy jënd te amul la jëriñ ban importance la am bu ngoonee bu jaayee ba ngoon kenn jënd ko mu dem yóbbu ko ci dex gi ne ko naanal est-ce que dina naan lu tax du naan xeer la dañ koo yett bant la dañ koo yett est-ce que lu ñu yett am na bakkan amul bakkan moo tax nit warul jaamu lu ko lu ko dul lor lu ko jëriñ yàlla rek subhanahu wa taala mooy jëriñ mooy lore leneen lu dul yàlla rek doo jëriño doo lore yàlla rek subhanahu wa taala lépp lu bàyyeekoo ci yàlla lool rek moo la mën a jëriñ lool rek moo la mën a lor moo tax ibrahima ne leen inna nii buraa'um mimma ta'budun man ku deñ laa ci lii ngeen di jaamu xërëm yii moo tax bi gaa yi dem di jaamu ji biddéew yi ibrahima bañ a dem ñu ne ko ibrahima lu tax doo dem mu ne inni saqim man dama feebar mu bàyyi ba gaa yi génn fekk defoon nañ ci seen jàkka ji seen jaamu xaayu xërëm bi defoon nañ ci yàlla yi mu nga fa woon defoon nañ ay lekk ci kanamu yàlla yi pour yàlla yi ñaan ci lekk yi lekk yi am barke ibrahima bàyyi bañ dem ibrahima ñëw dugg ci biir ne yàlla yi lekk leen lekkuñu bu jël jaas yi daa di daaneel yàlla yu ndaw yépp ba mu des benn yàlla bu ngand bi gënoon mag nga xam ne mooy chef bi moo nekkoon ci digg bi gaa yi wër ko mu daal di koy wékkal jaas yi ci gaa yi ñëw fekk jaamukaayu xërëm bi xërëm yépp daanu nañ ba mu des benn xërëm lekk yépp yàqu na ndax xeer yaa ngi ci kaw ba palaat yi ñu ne waaw man faala hada bi alihatina kan moo def ni sunu yàlla yi kan moo ko def yàlla bu ñuy bu ñuy dóor ñu naan kan moo ko def nii loolu doy na waar Omar ibnul Xattaab mi ngi nettali bi mu nekkee jullit mu ne dafa amoon benn yàllaam yàlla ji tàndarma la ko defee woon dafa doon tukki mu jël tàndarma bu tooy kole ko kole ko kole ko ba mu nekk yàlla am bopp am loxo am dënn am tànk ñaari tànk defar ko ba mu ba mu nekk yàlla mu weer ko ba mu wow mu def ko ci saak mu ne suy tukki day ànd ak yàlla boobu ndax yàlla bi aar ko mu dem ba mu sonn nag ndeysaan mu xiif lekkam jeex léegi nag tàndarma bi moo fi des te tàndarma bi mooy yàlla bi mu daal di koy génne ci biir saak bi mu ne ko ah yàlla aal ma bopp bi ba ñibbi kolaj lekk toogaat ba ci yàgg mu ne yàlla aal ma benn loxo bi kalaj dam toogaat ba ci yàgg mu ne yàlla aal ma benn tànk bi noonu la toppee yàlla bi lekk yàlla ba mu jeex ko loolu yàlla la Ibrahima tamit noonu la def daaneel yàlla yi ba pare daal di jël yàlla bi bu mag bi mu wét ko jaas bi gaa yi ñëwee lan lañ wax ñu ne man faala hada bi alihatina kan moo def ni sunu yàlla yi ah waa peuple bi ñu ne samina fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim dégg nañ benn jeune bu nekk ci biir koñ bi doon xas yàlla yi c'est sûr que moom moo def lii gars yi ne faatuhu ala ayunin noos dem leen ngeen indi ko ci kanamu peuple bi ñëpp taxaw ci kanamu yàlla bi ñu xaar gars yi dem kër ibrahima luqati ko ngurfaan ko yëkkati ko ci kaw di ko indi yëkkati ko ba ci kaw daal di koy indi biñ koy indee ba ci kanamu yàlla yi ñu taxawloo ñu ne Ibrahima kan moo def lii mu ne leen ah yéen di da ngeen maa yab rek ñu ne ko nan lañ la yabe mu ne yéen ngeen gis yàlla yëpp daanu ponkal mi taxaw wékku jaasi ji ngeen ma koy laaj man nekk ma fi woon mu leen koo laaj kabiruhum haza ponkal mi taxaw mu leen koo laaj gars yi ne ko yow xam nga ne yàlla bi du wax xam nga yàlla bi mun buus yàlla dafa mën a déplacé wu fu mu placé mu ne leen ko yéen da ngeen dof lan ngeen di jaamu loo xam ne mënul défendre boppam lii nga xam ne biñ ko doon rey di ko dammate mënu ci dara mi ngi ni yàlla yëpp dóor nañ leen mañ dammatoo xamu leen ku ko def lii mënul défendre boppam kon nan ngeen koy jaamoo kon inna nii man buraa un ku deñ laa mimma taabuduna ci li ngeen di jaamu man lii ngeen di jaamu man bokkuma ci gis nga Ibrahima bi mu waxee loolu am na ci biir dëkk bi ñu bëri ñu yeewu dañu commencé xalaat ñu sëggal seen bopp ñu xoolante ñu jàkkaarloo ñu ne kon xam ngeen ne ñun def nañ erreur waaye chaque jour nit ñi peuple bi am na ci biir nit ñoo xam ne ñooñu yàlla naan nafar ak benn mbooloo bu ndaw bu nekk ci biir dëkk bi ñooñu duñu bëgg nit ñi affaire bi leer gis nga Ibrahima bi mu commencé leeral rek nit ñi commencé gis dëgg bi dafa am ñu jékki-jékki rek daal di yuuxu rek daal ne unsuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi rek nit ñi daal di yuuxu fàtte li Ibrahima doon leen fu leen Ibrahima jële woon ak fam leen bëggoon yóbbu fan lañ mujjee mooy ñoom ñëpp ñu ne lakk leen Ibrahim lu tax ci jamono yooyu seetaan ngeen ci film Yusuf ku weddi woon yàllaay waa Faddaan nuñ lay def Ali ci film Yusuf ku fedd ku weddi woon yàllaay waa Faddaan nan lañ lay def ñu lay lakk premier épisode film Yusuf ki weddi woon yàlla bi nan lañ ko doon def ñu ko naroon lakk kan moo ko sauvé Yaaqub yéen ngi fàtte ñoom loolu moo doon seen aada moo tax Ibrahima ba mu weddee yàlla yi ñu ne nañ ko lakk parce que ñooñu seen seen aada mooy ku weddi yàlla yi ñu lakk te loolu nag dellusiwaat na jamono ku fi weddi bokkaale rek ñu lakk sa kër wala ñu lakk jàkk ji ngay jullee jàkk yi ngeen gis ñu koy daal da ngeen defe ne tey la commencé du tey kër yi ñuy taal du tey la commencé de depuis démb la woon kuy jaamu yàlla kese kese kese kese bokkaale woo ñu ne lakk leen këram wala lakk leen fa muy jaamu yàlla jeex na kon du tey démb la woon kon ku ñu lakk sa kër ci jaamu yàlla rek booba nga sant yàlla xam ne defoon nañ ko yonent yi alayhimu salaam moo tax yoonu yonent yi nekkul yoon bu simple nekkul yoon bu yomb yoon bu bëri ay dëgg la yoon bu metti la waaye nag ku ci jaar rek daal di egg fa yonent yi yekkoon mbokk yi ibrahima nee na leen dañ naa ci xërëm yi ila lazi jëm naa ci ki nga xam ne fatara nii ay xalaqa nii jëm naa ci ki nga xam ne moom a bind wa hada huwa alwaaqi aydan fi baadi man yantasibu ila alislaam lii mooy tey li nga xam ne moo xew am ci lenn ci ay nit ci ay gox ci ay barab ci ay kër ci ay jullit sax yoo xam ne tey ñu ngi askanoo lislaam waaye fa yacbuduuna allah wa yacbuduuna maahu gayruhu min ashaabi alqubur dañuy jaamu yàlla waaye dañuy jaamuwaale leneen ci biir ci ay bàmmeel da gis jullit buy jaamu bàmmeel tiim ci bàmmeel naan borom bàmmeel bi bu nga yokk sama sutura yokk sama mën-mën yokk sama kattan damaa bëgg nga barkeelal ma sama njaboot damaa bëgg sama doom yu jigéen yi sëy damaa bëgg sama doom yu góor yi seen dip nga am nga may leen ay diplôme tiim ci bàmmeel di ñaan loolu borom bàmmeel bi dafa dee yàlla wax na ci alquran kan moo gën a réer kuy woo ku la dul wuyu bàmmeel ki ci nekk dafa dee wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyama benn waay dafa gis benn waay bu ñëw ci bàmmeel di ñaan naan ko sëriñ bi visa laa bëgg visa Europe rek laa bëgg a dem waa ji xool ko dégg muy ñaan bàmmeel bi mu ne ko eh salaamaaleykum mu ne waaleykum mu ne ko borom bàmmeel bi dafa dem Dakar mu ne ko yow xanaa dangaa def yow kii dee nga naan daa dem Dakar mu ne ko boo boo xamoon ne dafa dee kay doo ko ñaan déggu leen wax bi de waaye lan laa wax lan laa wax da doon ñaan ki faatu nekk ci biir bàmmeel bi ñu suul ko ay at mu xool ko ba jàgg ne ko eh mu ne ah mu ne ki ngay ñaan nekku fi de dafa dem Dakar mu ne ko yow yow yow da nga daf yaakaar na yow kii kii de nga naan dafa dem Dakar mu ne ko bu doon bu dee woon kay doo ko ñaan nooy bàyyee yàlla di ñaan ku dee xataa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn dem tiim ci bàmmeel ca Medina fu mu tëdd naan da nga koy ñaan da nga koy ñaan nuyu ko soo jàngee téere yi ñuy ziyaaree bàmmeelu yonent amul looy ñaan yonent yonent amul lu muy maye ku dee du may yàlla mooy may subhanahu wa taala moo tax lenn tey ci ay nit yu tuddawoo lislaam da ngay gis ñuy tukki ngir ay bàmmeel di ñaani loolu ab jullit du ko def ak di rendi démb démb démb monument bi lañ doon rendil démb monument bi seetaan ngeen ko télé monument bi xërëm bi dañ doon rendil ay nag yu ñuul ay béy yu ñuul xar yu ñuul ginaar yu ñuul lépp lu ñuul béy yu ñuul ñu koy rendil seen xërëm bi kon léegi leer na ne xërëm la estati amul place ci lislaam yonent yàlla muhammad da cee jaaneel da cee daaneel ñaata ñetti téeméer ak fukk ak ñett la ko daaneel keroog fatxu makk yonent baa ngi yëg ci gileem gu weex gi alqaswa mu wàcc sahaaba yi encercler kaaba gi yonent bi wàcc ci gileem bi mu ngi yor kaan bi kaan bi ci kanam bi dafa am benn lonkukaay yonent bi dafa ñëw jàpp ci catu kaan bi di lonku xërëm yi naan qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa bu gësamee xërëm bi daanu saaba yi yuuxu jël tasaare ba kaaba gi set fecc ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett lépp mu daaneel ko ñun ñu ñëw di sampaat yonte bi daaneel ko ñun ñu koy sampaat am na ñoo xam ne sax dañuy dem jënd benn xërëm bu ndaw yóbbu ko seen biir armoire teg ko noonu ci kaw ci kaw ci kaw armoire am na ci kër yooyu dugg da ngay fekk ñu jël kilifa diine melal ko ba mu mel comme photoom teg ko ci kaw ak loolu baaxul loolu fu mu nekk malaaka yërmande du fa dugg loolu ak xaj fu mu nekk malaaka yërmande du fa dugg mook ay photo yu ñu wékk mooyal moo tax jullit yi war a jàngaat seen diine ñu xam lan mooy bokkaale ñu xam lan mooy diine bu leer pour ñu mën a sori bokkaale yàlla tabaraka wa taala waaye yemuñ ci rek di ñaan bàmmeel yi ak di fa rendi waaye wa tawaafu xawlaha ak di ko wër di wër da ngay gis ñuy wër bàmmeel comme ni ñuy wëree kaaba te xam ngeen ne tawaaf benn place kese lañ koy def ci kaw ak su kaw suuf mooy kaaba kaaba dong la ab jullit di wër di tawaaf mais tey ci àddina bi ñu ñu weex ñoo ñu ñuul ñi bëri na fooy dem nga fekk ay nit di tawaaf ci benn bàmmeel te li doy waar foofu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu wax dana bàmmeel ñaar kese la benn mu nekk xur ci xuru safara yi wala mu nekk benn jardin ci jardin aljanna yi alqabru rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufarin naar ñaareel bi mooy yonent bi nee na rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi naar bëri na qabru bu ñuy wër di jooy di ñaan boromam fekk borom bàmmeel bi mu ngi safara te nit ñaa ngi ñaan ci bàmmeel bi fekk waa jaa ngi safara yonent bi moo wax loolu sallallahu alayhi wa sallam wa gayru zalika ak yeneen ci ay bokkaale yu dul yi fa waqaw fi shirki ñu dugg ci bokkaale shirkil akbar bokkaale boobu nga xam ne nag yàlla subhanahu wa taala du ko bale fal waajib isan ala al abd aw ala al ibad ifraadu llah bil ibadati wajtinaabi shirk kon li war jaam yi ñun ñëpp mbokk yi xam ngeen li nu war mooy ñu jaamu yàlla kennal ko ci jaamu giñ koy jaamu waabudu llaha wala tushriku bihi shay'an yàlla loolu la wax ci alquran mooy jaamu leen ma bu leen ma bokkaaleeg lenn bu leen ma dendaleeg kenn kon ñu war a moytandiku ginnaaw jaamu yàlla ñu war a moytandiku bokkaale yàlla tabaraka wa taala kama faala imamu lxunafa ibrahim comme ni ko ibrahima defee alayhi salatu wassalaam haysu afrada allah bil ibadi moom ibrahima kennal na yàlla ci jaamu gis nga loolu moo tax ngeen di dégg ñu ne ibrahima mooy ibrahima nu ñu ko tuddee am na benn tur mooy imaamul muwahidin adduna bi yépp ñi kennal yàlla boo leen boolee ibrahima mooy seen imam adduna bi yépp yàlla tagg na ibrahima ci ngëm ci wéetal yàlla ba tollale ko adduna bi yépp ci kennal yàlla inna ibrahima kaana umma ibrahima rek benn nation la ci kennal yàlla nation ci kennal yàlla tabaraka wa taala kon jullit dafa war a roy ibrahim ci kennal yàlla tabaraka wa taala haysu afrada allah bil ibadati wa tabarraa min ashirk moom ibrahima kennal na yàlla ci jaamu gi waaye denc ci bokkaale denc ci bokkaale kat yi yemu ci waaye wa xasara minhu mu moytandiku loo ko waaye sax mu dénk ay njabootam ne leen na ngeen dee ci kennal yàlla gis nga keroog ba yaaquba feebare mu woo ay doomam benn question la leen doon laaj ma taabuduuna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw wala nga dégg mu ne wasa biha ibrahim banihi wa yaquba ya baniya inna allah astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun ibrahima da ko jël di ko dénkaane ay njabootam naa leen bu leen bokkaale yàlla mukk mukk ci àdduna mais xoolal ñun tey waxuma la nga wax say doom bu leen bokkaale mais booy dem ci barabu bokkaale kaat bi da nga leen di yóbbaale léeg-léeg nga de kenn dundu dem dee dem foo jëm dina ngay bokkaale ji dundu dem dee dem allahu akbar moo tax gis nga xol yi bu ñu lëndëmee ci bokkaale rek musiba mooy am xol bu dee ci bokkaale xol boobu loo wax boroom du ko dégg day tëx gu lu gumba parce que bokkaale mooy yàq xol bokkaale day yàq xol da koy rey ba xol bi dee dootul am yëg-yëg ci yàlla sooy wax kenn ci ñoom yàlla day mel ne da nga koy opéré da nga jël jaas yi di di di ko dagg ixwaan yi ibrahima yemul ci denc bokkaale yemul denc nit ñi bokkaale waaye def ko dénkaane wa wasa bi zalika zurriyatahu min baadihi mu dénk ko ay njabootam bu ko dénkee njabootam njabootam gi mu ko dénk dañ ko doon dénkaat seeni doom dénk nañ ko yaaqub yaaquba dénk ko ay doomam gis nga yaaquba keroog bu muy faatu mu ngi sukuraat dafa woo doom ji naan leen ma taabuduna min baadi lan ngeen di jaamu posé leen question waxu leen tool yaa ngi ni tey ci sunu réew borom kër buy faatu nga amoon ay tool yu bari da nga naan doom yi tool yi tool yaa ngi noonu ngeen fexe tool yi nangam fekkoon ne ay kër la yoo doon luwe nga ne kër yaa ngoog fekkoon ne benn société la nga leen société baa ngoog waaye xoolal Yaaxub bi muy faat mu dajale doom yii yëpp amoon nay tool amoon na kër amoon nay jur ay gétt waaye yooyu yëpp waxu ci lan la wax bi mu dajalee xale yi lan la leen wax ma taabuduna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw lan ngeen di jaamu qaalu naabudu ilahaka ñu ne ko ñu ne danañ jaamu sa yàllaay bàyyi ibrahim wa ismail wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun kon darsu tey ñetti tomb yooyu lañ ci doon jël mooy jullit bi mën a roy baay ibrahim waaye mu mën a leer ci jullit ne mënul am tawxid kennal yàlla lu dul dafay sellal waaye ñetteel bi mooy mu mën a xam dëgg dëgg dëgg baatu laa ilaha illa allah lan lay tekki kon ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ñun déggal topp asalaam